milliards yëpp. Mhm. Mhm. waaw décision boobu mën naa ne sax du mbetteel ndax mbetteel mooy loo xam ne déggoo ñu ngun nguni ko fen waaye dangay yeewu rek mu daanu sa kaw waaw kàngam yi ko wër wax nañu ko ba ñëpp di ko dégg xataraayu nañ ci sax du mbetteel waaye maanaam yaakaar bu tas la. vraiment te loolu man de personnellement mooy li may dund tey yaakaar bu tas parce que mënuñu nangu président de la république mënoon nañ nangu sax ñu ni promesse de campagne la def maanaam def doon wuti dige waaye ba mu faloo ba pare am ñeenti at yàlla dige boobu mu defoon mais amoon na jotu seet ndax dige ba ndax moom war na mën a nekk wala warul mën a nekk waaye depuis boobu ba léegi nga wër àddina bi yëpp dem Nations Unies dem Union africaine dem seeti say moroomu président wax sa askan ci moment yu solennel ne yow kat sa mandat wàññi nga ko ñu sargal la sargal Sénégal ñëpp ñu ngay yeewu toog ñeenti at après taxaw ne waaw man day wax dëgg yàlla dañ ma ndar képp waa conseil constitutionnel ñoo ma ndar képp loolu moo tax yaakaar tas ndax doom googu ëpp na bépp loi ëpp na bépp disposition rax ci dolli tey jii professeur Ablaye Dieye mi ma di ko sargal mu ñëw fi defal ñu conférence xamal ñu ni que li ñu joxe mooy da nga doon xalaat lañ maanaam conseil avis avis mooy yow danga bëgg def lii ñu ni la nga laaj ñu xelal la xelal nañ ko ku la xelal nag yay toog xool lañ la xelal maanaam du loo xam ne dañ la ko teg ne la danga koy def par force nga yeewu ne loola kat léegi rangoo naa ko dama koy def par force ndax man looloo ma ci déception ah, ma ne conseil bi xelal na ko waaye la mu waxoon askanam la mu wax àddina bi yëpp lan tey dan lay kaddu homme politique di jëriñati ci Sénégal. ci war naa mën a ëpp doole constitution justement. parce que ma ne euh, loolu du constitution kàddu ga. waaw kaddu gi lu mu ci waroon def sax. non c'est que constitution bi wax nañ la ni que constitution bi ñun ñëpp dañ koo. dañ ko dañ koo décrier maanaam dañoo ne constitution bi Wade daf koo joggati def ci lu ko neex fukki at ak ñaar ñun ñëpp a ko wax kon tey bu ñu taxawee lu mu waroon njëkk a def mooy xoolaat constitution boobu seet nu mu koy tegaatee waaye nga yeewu defoo ca dara nga yeewu bëgg jël constitution boobu ne waatoon naa ci rek kon nag demay daal di professeur bi wax na ko léegi waatoon na ci waaye terewul mu tas senaa bi waatoon na ci waaye terewul ba Sénat ba def ko taste mu nga ca woon ca la mu waatoon donc man dama bëgg man xalaat naa ne kàddu président bu mu joxe ñeenti at man xam nga bu ko waxoon benn yoon sax ñu ne xëj na njuumte am na waaye nga toog ñeenti at di ko wax di ko waxaat dem wax ko fu ne ci àddina bi yëpp wërngal képp nga wax ko ba pare nga bëgg yeewu tey rek ne man kat mënatut a nekk loolu ma ma jaaxal dafay tax ma tiit xalaat ne yeneen yim ñu wax ah ndax du ñu yeewu ñu ne ñu mënut a nekk ci wàllu koom-koom ak ci wàllu leneen su fekkee noonu la day kat jar na tiit ah euh, waaw nag aussi ñu ngi doon xaar yéen politique aussi euh, ngeen teg ay jéego ndax la ngeen xaar ba askan bi jóg fajal boppam euh, soxlaam waaw xam nga man li may woote d'abord président mooy affaire référendum bi man bokkuma ci ñi wax ne jarut muy am dañoo bëgg mu mu am le vin pour man dafa jàmp ndax président am na lu mu war a def balaa loolu mooy lan résultat séenéeri yi nga am ne ñoom ñu ngi koy bàkkoo tey ndax defuñu benn jaloog nee nañ dialogue ba séenéer yi moo ko def ñu ngi koy bàkkoo te ñu ko doon dàq bu yàggul dara nañ ko jël mu waxtaan teeg nit ñi te ñu dem régler lépp li nga xam ne mooy nasaxal assemblée nationale li nga xam ne mooy nasaxal pouvoir judiciaire bi maanaam Euh, yoon lii li nga xam ne mooy tax ba président tey nekk buur ak bumi ñu faj ko ndax ñu gën a dooleel démocratie Sénégal ak institution sénégalaise na jël à profit temps bii nga xam ne yokk na ci mandaam mu liggéeyal loolu waa Sénégal waxtaan ceek ñoom ñu dem ci benn référendom boo xam ne bu ñu ca génnee ndaxte su dul loolu kat bu ñu defee référendum boo xam ne askan wi gisu ci boppam buñ bu bu bu buñ ko weddee dana metti torop si moom te ñun nag xam nañ ne askanu Sénégal askan bu am ful la bu am ful la ak fayda wane na ko 2012 bi àddina bi yëpp foogee ne Sénégal takk na ndax coow li jolli na fi mais askan wi dafa téye ay carte électeur am xaar ba moment ba jot ñu ñëw def la ñuy def kon nag man je pense que li ñu war a wax président mooy le 20 jege na rax ci dolli le 20 mais xanaa ñi koy wër waxuñu ko ne. c'est le dimanche des rameaux avec les JMJ waxuñu ko ko waxuñu ko ne que journée francophonie la boo bëggee woon nit ñi ñu ñëw ci loola mais su leen neexee su boobaa sax day tax ba duñu ca farlu kon nag man bëgg naa mu delloo si xelam jël résultat CNRI yii xoolaat ko renforcer le pouvoir judiciaire renforcer le pouvoir parce que am na lu mu dugal ci parlement bi waaye jëfinam démb rek tey na xel ndaxte moom waxul dara ci li président assemblée wax démb yéeyu ci yàbbiwu ci waxul président assemblée lu mu ko wax loolu itam ñu ngi koy exiger pour ñu wax ñu lan moo nekk ci contenu décision président assemblée nationale dox ñu gëdd assemblée